dal leen ak jàmm mbokk internet yi safo di seetaan Buzz M TV cant ak ngeureum ñen na leen si topp bi ngeen di top sen bi di len jaajeufal bu baaxa baax comme ni ñu koy waxee bu fekke gan nga ci sen bi bul faté abonné bës cloche de notification bi vidéo bu ñu dugal nga man ci jot nak dañ dañuy ñëw ci vidéo spécial jangat yu ama am solo jëm ci nouveau gouvernement bi nga xamné président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre di Ousmane Sonko dal dinañ koy tek ñu nemmeeku si nag yu lu bees tàq mën nañ ne loolu nag dinañ si dikk ak jàngat yi nga xam ne amoon nañ ko si lenn si sénégalais yi nag ñoom dañu gis ka ne daal Eh, dara beesul lool nak dinañ ci dik waye amna lu bes 25 ministre ñu ne 30 31 ministre la ndax yenen 5 yi wala 6 yi ñoo ngi ci biir ba légui waye lool lepp dinañ ci dik décortique ko ak jangat yu ama am solo yi nga xamne nak nag nañ ko ci amal eh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre am di Ousmane Sonko eh, li ñu digon Sénégalais dal premier pas man nañ né def nañ ko instant bi ni euh gouvernement bi amna lu man ñett ñoo xamne rek bëgg def seen liggéey moo tax ñu dàq leen kese waaw wala ñu sanctionné leen euh, beneen bi euh, euh, du du ñoom kese dafa am lu fi jaaroon yoo xam ne Lamine wax dëgg yàlla suñ administration moo normelu woon ay def sa pos wax dëgg yàlla loolu jéggi na dayoo waaw général bi moom ministre de la justice boobu noonu tey lenn rek lañ recommandable mooy lañ leen mën a xàmmee mooy. bokk na ci ñi nga xam ne état daaw leen wax def leen ñu def seen liggéey la ñuy def waaw mosuñoo nekk exemple loo xam ne tey dañ leen di produit di leen def loo lu ñu war def fii nag ñan ngeen def loolu lu ñu war def ñu ngi fi ne dàng tey jommi waaw da lay won na yàlla mbir yi yàlla da ciy feeñ ñun ñëpp dañ ci war a am dégg-dégg booy nit dafa war am gëm-gëm nekk ci lu mu war a def bu fekkee mi ngi ci dégg war a am lenn lu muy ragal gis nga la affaire yi fi jaar nii yëpp ak résultat yi même gouvernement bi ñu tabb ni tey. yëpp doomu aadama da cee war a jàng lan mooy gëm-gëm nit dafa war a nekk ci yoonam yoon bu jub bi waroo ragal dara parce que yàlla nga àndal ah, ministre de la justice boobu ñëpp d'accord nañ ne état mënu ko woon manipuler te pourtant ñaari gouvernement yi mi ngi fi bu Abdoulaye Wade yëpp mi ngi fi woon mais ñëpp ay circonstances yu bari jaar na fi yoo xam ne état mënu ko woon manipuler. nit mën naa bañ a liggéey ñu dàq ko. mën nañoo gis ne keneen kii nii moo ko ëpp compétence ñu jox ko kooku yaakaar ne kooku dana ko mën a doxal euh, mën naa doon liggéeykat sax daal di essuyer def erreur waa yooyu bu euh, bokkut ak dara ak li nga xam ne daf na fàng li nga xam ne dafa fàng dafa am xeex bu fi amoon xeex bu metti waaw képp koo xam ne nekkoo wii mise ñu éliminer la c'est ça la réalité Lamine fii administration bi ngay gis bëri na yow ñoo xamul. ñoo xam ne affecté nañ leen fu kenn xamul ci àdduna bi bëri na yow ñoo xamul dañoo mujj bàyyi seen liggéey sax daw dem génn dëkk bi waaw xëy na yow loolu xamoo ko mais am na ci administration Sénégal waaw ñoo xam ne dañoo daw dem génn dëkk bi ñii dem ci ni karaguwaay ñii ñu affecté leen fu ne ñu yóbbu leen ko waaw kon loolu mooy réalité bi nga xam ne moo amoon waaw loolu nag moom lañ weesu di ñaan yàlla bañ cee eggati. kon nañuy xool ñi nga xam ne jàpp nañ ne ay bañkat lañ ëllëg bu ma leen même président de la république bi leen fal nii tey bu leen santoon ñu bañ waaw kon réalité boobu lañ wane bu leen neexoon wut seen waa parti ñu nekk fa naan wii monsieur lu ñu leen defloo ñu def ko waaye liggéey Sénégal moo leen ñor ñu xool les plus intègres ci dëkk bi ñi nga xam ne ay bañkat lañ ñu fal leen kooku lamun yéen ñëpp ci war a ndamu parce que Sénégal moo gagné parce que dafa am étape bu ñu romb nekkutuñ man may gañe matam dang may fal man may gañe fi ni dang may fal étape bobu lañ jogé mu wara don sante go xamné ñun ñepp ci wara sante way jël def tala non étape bobu mu wessu nañ ko quoi ay féete di gâteau mom wessu nañ étape bobu bon pédé bu ci amé ministre tamit xamoko li ma mën xamal dal moy ministre yi wax dëgg yalla li lañ doon xaar dal li lañ doon xaar surtout dafa am ay poste clé yo xamné wax dëgg yalla waruñ fa tek ay politiciens te loolu lañ def c'est extrêmement important benen bi amna ay petits politiciens yo xamné euh, dañ ñu joxul won seen gëdd rek mais ay borom yi xam-xam lañ moon comme ku melni Cheikh Gueye bu motax ñu wutoon ben parti ba amna fi ak ak keneen ki ñu def télécommunication mais yoy yëpp li ci am solo rek moy kenn ku ne sa parcours l'homme qu'il faut à la place qu'il faut poste bo dem ka nga xamné wax dëgg yalla kenn du werante na war na koo mën yor mom lañ ko jox lool mo ci am solo. beneen bi Fatou li ngeen war a nangu mooy c'est un gouvernement apolitique loo xam ne ci jamonoy Abdou Diouf lañ ko gëj am gouvernement yu mel nii jamonoy Abdou Diouf lañ ko gëj am loolu ngeen war a saluer euh, matagul mais kenn du jege vingtième état di war di daanu loolu lañ war a saluer Sénégal dafa besoin lii ñoo xam ne duñ ay politiciens fas yéene liggéeyal seen askan Abdou Diouf lañ ko gëj a amee. c'est ça la rupture loolu ngeen waroon a saluer ana ñi àndoon ak parti Pastef ana ñi doon xeex ana nangam ak nangam ndax gis nga leen ci gouvernement bi loolu ngeen war a saluer ñun fi mas a teg dañuy politiser mbir mi ana raison yañ doon wax ndax raison yi dañoo séddoo ndax dañoo tëb ñu de ndax dañoo wut ay base politique ndax dañoo jël ay politiciens Fatou c'est une rupture matagul nag mais li ñu war a saluer mooy.

amul portefeuille ministre. Ah, waaw xam nga nag ñeneen ñi xëy di wax noonu mooy ñooñu mooy loolu Fatou beneen bi mooy dafa am àdduna li ñu naan innovation yéen li ngeen waroon ak jéem a comprendre mooy ministre yi ñu boole ba pare lu tax ñu masoon ñu ñu leen doon tàqale maanaam yi ñu boole il tamit mu jaral leen tamit des fois ngeen xam ne seen réew la dara bu amee ñu def ci ay recherche déglu borom xam-xam yi ñu wax maanaam lépp dëgg dëgg dëgg moo am. waaw ku waxul te contre euh, ba te bañ a contre rek maanaam bu ñu dëgg te processus bi day gën a gudd maanaam dara boo koy defar kenn du jóge vingtième état di wadd di daanu déedéet da ngay wàcc par escalier par escalier loolu moo am ci gouvernement bi beneen bi mooy lépp important du loolu lépp important mooy ndax ñu fa fal mérito nañ poste yam déet ndax ay boromi xam-xam lañ ndax lii mas nañ koo am par exemple ministère forces armées kenn boo demoon armée tey ñëpp dañuy jibile wala nangam. ministre de l'intérieur li gars yi mas a jooy eh, laxaat yow seen fait divers ngeen ne xam nga liñ ñu naan fait dafa am loo xam ne c'est un projet à long terme par exemple boo demee ci européen ay quinze ministres vingt ministres la ñu mais ñooñu ay pays yu pare lañ boo demoon Italie tey mën nañoo dund sans gouvernement dañuy dund ay weer sans gouvernement am na ñu tudd ak sans gouvernement ñooñu bokku ñoom ñun dafa am loo xam ne projet long terme la buñ demee ba am li ñu naan ay institutions yu fort

waaw mais rupture dafa am noo koy commencé liñ commencé tey moom ngeen waroon def prêter attention mais xam naa ne sax xamu leen ko waaw parce que yéen euh, da ngeen a par rek pour ni ngeen di politique wax dëgg yàlla nar ngeen am problème nar ngeen a sonn waaw tey dafa am ay rupture yu essentielle yoo xam ne dafa feeñ ci gouvernement bi foofu lañ leen doon xaar mais malheureusement xam naa du ngeen fa dikk parce que xamu ko sax.